asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki daaray xam-xam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare ñu fa yéene dellu siwaat ak yéen ci sunu bind ci téere boobu di muxtasar cheikhul xalil ci sunu bind fukkeel ak ñeenteel ñu ñaan suñ boroom mu dimbali ñu ci mel ni jeexaloon nañ dog bi aju ci wàllum teggini faj aajo kon tey ñu war a jàll ci faslun beneen dog dog bi daf ci wax lu aju ci wàllum yi nga xam ne dafay firi njàpp mu ne nuqi ba firéef na alwudu njàpp bi xadasin ci am toj dafay wax yi nga xam ne moom mooy firi njàpp yooyu nag dañ koy def ñetti xaaj am lu ñuy tuddee ahdaas ay toj am lu ñuy tudde asbaab ay sabab ak wa xayrihima lu bokkut ak yooyu yaar te wa murtad wala sikki sàkka mu ñëw nag ci leeral jëm mi am toj ndax mu ne nuqi da siréef na alwudu njàpp bi xale siñ ci am toj wax moom alxaariju moo di aji génn ja almoqtaadu jadi aji baaxoo génn mu génn fii wér am toj moom lay leeral ne mooy lépp loo xam ne dafa génne ca buntu suuf ba wala ca buntu sawukaay ba te baaxoo faa génne su génnee ci ak wér rek dana yàq njàpp génnee ci ak wér li dana ko wax la baaxoo génnee ci buntu suuf bi nag mooy ngelawal ak xayta la baaxoo génnee ci buntu sawkaay bi saw ci la mën yu ci la mas yu ci la wadd yu itam ci la yooyu yëpp loo xam ne génn na ci buntu sawukaayu góor gi walla jigéen gi rek dana yàq njàpp la xasan waxuñu ay doj walla ay jàmbaraay mooy doj rek waddudun ak i sax walaw bi ballatin ak donte ànd naag tooy tooy lu mu la waxee ne alxaariju almuxtaadu kon lépp loo xam ne dafa génn te baaxa baaxewu faa génn rek du yàq njàpp mel ni ay jàmbaraay yi mu wax ay doj jékki-jékki génn ci buntu suuf si wala mel ni ay sax génn ci ak donte sax yooyu bi muy génn sax ànd naag tooy tooy ñee du yàqu njàpp nga bàyyi xel nag law gi def ci junju alxilaafu masxab yi li wax ne walaw bi ballatin ak donte ànd ak tooy tooy donte sax yooyu wala doj yooyu bi ñuy génn ànd na ak tooy tooy sax du yàq njàpp mi waaye am na ñu ne nag bu fekkee ne dafa ànd ak tooy tooy dañuy xool bu fekkee tooy tooy rëy lool moom doj yi bi ñu génnee wala sax yi bi ñu ci génnee daa ànd ak tooy tooy bu rëy lool bu fekkee ne ku xool loolu daf koy askanale na kii kat génn na ay doj wala kii kat génn na ay sax kon su boobaa du yàq njàpp bu fekkee nag dañ koy askanale na kii kat xayta na wala kii kat xayta na nga xam ne duñ ko askanale doj yooyu kon su boobaa nag loolu dafay yàq njàpp kon bu génnee ay doj wala mu génnee ay sax lay tax du yàq njàpp mooy ku xool loolee di ko askanale ay doj wala ñu koy askanale loolu lam génn waaw te bañ koo askanale kii kat xayta na kon su boobaa moom bu fekkee dañ koy askane ne xayta na dana yàq njàpp wa bi ak ci am njokkale faaraxa moom taqalikoona ak moom ak sarali ëpp ci jamono naka noonu ki nga xam ne dafa am ab njokkale moo xam njokkalem mëniyo moo xam njokkalem masiyu la moo xam njokkalem saw moo xam njokkalem wëddu la moo xam njokkalem ngalawal la wala xayta yépp bu fekkee ne dafa am am njokkale daal te mu xool bu fekkee li ëpp ci jamonoom njokkaleem ma def ko koy dikkal kon su boobaa dana yàq njàpp kon su boobaa du yàq njàpp bu fekkee li ëpp ci jamono la koy dikkal kon su boobaa du yàq njàpp bu fekkee li gën a néew ci jamonoom itam bu fekkee bu xaaj jamonoom genn wàllu xaaj genn wàll gi yëpp daf ko cay dikkal kon su boobaa ba tey du yàq njàpp bu fekkee li gën a néew ci jamonoom nag laf koy dikkal kon su boobaa du dana yàq njàpp mhm. kon njokkale moom euh, da koy def ay xaaj mooy bu fekkee ne njokkale mi daf koy dikkal lépp jamonoom wala li ëpp ci jamonoom kon su boobaa du yàq njàpp bu fekkee itam daf koy dikkal genn wàllu jamonoom boo xaajee jamonoom def ko genn wàllu xaaj genn wàll gi yëpp daf koy dikkal kon su boobaa itam dootul yàq njàpp bu fekkee nag li gën a néew ci jamonoom la koy ñëwal kon su boobaa dana yàq njàpp mooy faaraxa ak sara kasale si masi yi ni ki njokkale masi yu xadara moom àttan na xalaa rafxihi ci ak yëkkateem mu ci ak dindeem loolu nag mën naa ame ba xoolee sara bi bitadaawin aw tasharrin aw tazawujin aw sawmin la yasuq alayhi bitadaawin ci ak saafarawu aw tasharrin wala ak nja ak taarawu muy ab jaam aw tazawujin wala takk soxna aw sawmin wala koor la yasuq alayhi goog du ci moom wala ci saraabi la dafa noonu koo xam ne dafa am jokkaleem masiw te mën na koo dindi mën naa tàqale ko ak moom benn xam na ne jokkaleem mii bu demee mënees na ko saafara bu fekkee ne xam na ne feebar la bu nekk ci moom te bu demee hôpital ñu saafara ko ko mën na koo saafara wala xam na ne jokkaleem mi bu takkee soxna mu saafaraw wala mu xam ne jokkaleem mi bu fekkee am na jaam bu jotee ak moom mu saafaraw wala xam na ne jokkaleem mii mën naa woor koor goo xam ne du tiis ci moom bu ko defee mu saafara saafaraw kon su loolu nag moom dootul yàqati njàpp bu mm. fekk mën naa def yooyee nga xamante ni moom mooy saafara njokkale mi bu fekkee nag mënu koo def nag moom kon ak tëli la ba tey incha allah moo yàq du yàqati du yàqati njàpp ma bu fekkee njokkale mi daal mën na koo saafara kon su boobaa moom deesu ko ko jéggal dana yàq njàpp mi bu génnee ci moom bu fekkee nag mënu koo saafara kon su nag su génnee ci moom Euh, ñu jéggal ko ko waaye wanu di ba soppeef na njàpp in la zaman moom ak saral li ëpp ci jamono wa bi sababihi ak ci ay sababam moom toj wa huwa moom zawaalu xaqlin moo di demu xel moo di rëccu xel wa imbi naw min ak doon ci ay nelaw la saqu la yooyu diis na bokk na ci yi nga xam ne ay sabab la ci li yàq njàpp nekkut jëm mi toj day sabab am am toj mooy nit ki bu jàppee ba pare xelam daal di dem jàpp na bu pare xelam daal dem moo xam dafa xëm wala ak ndof dikkal ko wala mu jàpp ba pare ni jinne def koo sadd wala mu màndi moo xam lu araam la mànde moo xam lu dagal la mànde yooyu yëpp ndegam tàqalikoo na ak xelam rek njàpp moomu yàqu na wa in bi naw min ak doonte ci nelaw sax la saqu la yooyu diis na xam ne bu fekkee daa jàpp ba pare nelaw nelaw yoo xam ne nelaw yu diis la nelaw yu diis mooy li nga yor ci sa loxo bu waddee doo ko yëg nit mën naa ñëw dugg ci biir néeg bi ba génn te doo ko yëg ku jàpp ba pare nelaw nelaw yu diise noonu su boobaa njàpp mi te daal di yàqu wala xasura ak doonte dafa gàtt sax ak doonte nelaw yooyu dafa gàtt waaye nelaw yu diis la rek su boobaa njàpp mi yàqu na la xafa waxuñu nag bu nelaw yi woyofee waaw nee na bu fekkee nelaw yi daa woyof nelaw woyof mooy li nga yor ci sa loxo bu waddee nga yëg ko bu nit duggee ci biir nga yëg ko bu nit waxee ci yow kàddu nga dégg ko loolu nelaw yu woyof la waaye nag wan nu ba soppeef na njàpp moom nelaw yu woyof yooyu intaala ndeem yàgg na bu yàggee sopp nañ ci njàpp kon nelaw na ko jànge rek ñeenti xaaj nga koy def mooy nelaw yi nga xam ne dafa diis yooyu moom moo xam yàgg na moo xam yàggut dafa yàq njàpp ak nelaw yi nga xam ne dafa woyof kooku moom bu yàggee ñu sopp ci moom njàpp bu fekkee ne yàggut su boobaa soppuñ ci moom njàpp waaye nelaw yi woyof moom bu fekkee yàgg na wala yàggut du yàq njàpp nelaw yi diis rek moom mooy yàq njàpp walamsun ak laal yaltazu boobu dana bànneexoo saahibuhu boroomam bihi ci moom xaada dan ci aada naka noonu moo xam góor la moo xam jigéen la koo ci xam ne daa jàpp ba pare laal moroomam laal googee bu fekkee def caa jublu bànneex wala mu am ko ca dana ko wax ci kanam wala jublu woonu ca bànneex waaye am na ca bànneex su boobaa itam dana yàq njàpp waaye laal gii mu wax nag gi yàq njàpp mooy mu laal koo xam ne daawees na am bànneex ci moom mel ni mu jàpp ba pare laal soxnaam wala mu laal koo xam ne nekkul kum xaraamanteel wala mu jàpp ba pare laal ab jaamam yooyu yëpp bu ko laalee rek te jublu ca bànneex incha allahu dana yàq njàpp mi wala mu am ca bànneex wala li zufrin ak doonte ñeel we ak doonte we la laal aw shaarin wala kawar aw xaailin wala aji digale doonte sax kii laal laalu jëmmi yaram wi dafa laal we wewu ki muy laal wala mu laal kawaram wala mu laal ko ci loo xam ne daa dox diggante moom mel ni alxaayil aji digale mel ni mu sol loo xam ne dox na diggante moom ci bi mu koy laal waaye nga bàyyi xel ci baatub law dafay junju wuute am na ñu wax ne bu ko laalee we du toj wala kawar wala xaayil googu am na ñu wax ne du toj wa uwila taawileef na mu dawana xayil googu lay wax bil xafiifi ci aji woyof ja wa bil itlaaxi ak ca boyal ga ñeen ñi nga xam ne ñooy sara mu dawana am nañu wax ne moom kat bu fekkee ne bi mu koy laal am na lu dox diggante moom bu fekkee la dox diggante moom dafa woyof kon su boobaa njàpp mi du dana yàqu bu fekkee ne li dox diggante moom muy xayil boobu aji digale jooju dafa woyof kon su boobaa njàpp mi dana yàqu waaye bu fekkee ne li dox diggante moom daa fatt woyofut mel ni mu sol mbubb mu diis wala jaget lu demee noonu su boobaa nag moom kon du yàq njàpp mi am ñu ne wabil itlaaxi ak ci ak boyal am ñu ne mutlaxan la kay ak anam gu mu ko mën a laale moo xam lam sol daa woyof wala daa diis su boobaa bu ko laayee rek te jublu ca bànneex wala mu am ko ca njàpp ma yàqu na mel na ne nag loolu moom nga eh, jot a jàng ci boroom téere bi lim indi ak yeneen téere yi nga xam ne moom nga doon tàmbalee yooyu nga ci daal loolu nga ci daal jàng waaye laal googu yëpp nag li tax mu yàqu mooy yi mu bëgg a wax njokkale moom nga xam ne dañoo wax ne du yàq njàpp bu fekkee ne li ëpp ci jamonoom dafa taxoog moom mbaa ko xaaj jamonoom genn wàll ga dafa taxoog moom kon su boobaa danañu sopp ci moom muy jàpp julli gu nekk mu jàppal ko sopp nañ ko ci moom ak sopp rek la waaye laa in lazama jamihahu waxuñu nag bu taxeeg moom ci mbooleem jamono ji yëpp bu fekkee ne jamono ji yëpp jokkalem noonu la koy def moom su boobaa soppatuñ ci moom sax muy jàpp laa inshaq waxuñu dem tiis na maanaam bu fekkee ne lee mu la wax na le wa nudiba in lazama ak sara sopp nañ ci njokkale njokkale mi muy jàpp bu fekkee ne lim taxoog moom li ëpp ci jamonoom la ca la wax ne laa inshaq waxuñu dem tiis na bu fekkee ne jàpp day metti ci moom ba bu jàppee mel ni ndox mi sedd lool ba jàpp di metti ci moom wala mu am wéra di xam ne bu jàppee mën naa metti ci moom yooyu yëpp su boobaa nag moom soppatuñ ci moom mu jàpp bu fekkee ne bu jàppee dina ko jural ay coono rek kon mën naa doy jàpp moom yoroon insha allahu taala wa fi itibaari mulaasamati nekk ci xalam aji taqooga fi waxti salaati ca waxtu julli wa aw mutalaxan wala kay mutalaxan la moo xam waxtu yu am julli ak yu amul julli taraddudun déng-déng ñu mujj ñi daf la waxoon ne la sa njokkale mi bu fekkee daf lay dikkal li ëpp ci sa jamono wala genn wàllu jamono dootul yàq njàpp muy wax nag ne bu fekkee ne dañuy xool eh, njokkale mi ni mu lay dikkalee ndax dañuy xool ci fi nga xamante ni diggante yi nga xam ne moo am waxtu julli ne li tàmbalee ci bu tusbaar jotee ba ba fajar di fenk ndax diggante boobu rek la ñuy xool naka la ci njokkaleem di def ndax fi tusbaar jotee ba fi fajar di fenk diggante yooyu ñoo am fi tusbaar jotee ba fi jant bi di génne diggante yooyu ñoo am waxtu julli ci xam ne fi jant bi génne ba tisbaar jot diggante boobu amul waxtu julli farata ndax dañuy xool diggante yi nga xam ne moo am waxtu julli rek nu la ci njokkaleem di def wala mutlaxan kay dañuy xool moo xam waxtu yu am julli la ak waxtu yu amul julli guddi ak bëccëg yëpp ñu waññaale ko waxtu yu am julli ak waxtu yu amul julli nan loolu am na taraddudun déng-déng ñu mujj ñi min maxrajee tukkee ci yaari génnukaayam baat boobu fa mu topp dafa xaw a sori moom la waxee ne la waxu alxaariju almuxtaadu euh, baat boobu moo ci toppoon min maxrajee tukkee ci yaari génnukaayam lay génn ci moom bàyyi ko ci buntu suufam wala mu bàyyi ko ci buntu sawkaayam mhm. aw suqbatin wala ab bën bën taxtal maxidati gu nekk ca ron mbàq inin saddaa ndeem sak nañu ñoom ñaar muy bunt suuf ba ak sawukaay ba ndax noonu itam bu fekkee ne dafa am bën bën dafa nek ci ron mbàq gi waaye nag buntu suuf bi dafa sakk ak buntu sawukaay bi itam daal di sakk bën am loo xam ne dafay génne am loo xam ne dafay génne ca bën bën boobee ba tey loolu itam dana yàq njàpp bu fekkee ne suñ boroom da koo defal ab bën bën boo xam ne dafa nekk ci ron mbàq gi ba pare daal di sàkk buntu suuf beeg buntu sawkaay bi xam ne dara du ca génne am luy génne ci bën bën boobee loolee ji génne ci bën bën boobee dana yàq njàpp mhm. wa illa wa illaa mooy bu fekkee ne bën bën bi dafa nekk ci ron mbàq gi ba pare suñ borom sëkkut buntu suuf bi sëkkut buntu sawkaay bi kon fa xawlaani am na ñaari wax ba tey wa illaa bu fekkee ne bën bën bi dafa nekk ci kaw mbàq gi waaye nag borom bi sàkk na buntu suuf bi wala ak buntu sawkaay bi kon ba tey fa ni am na ñaari wax aha bu fekkee ne buntu suuf bi suñ borom sëkku ko am na bën bën boo xam ne mu ngi ci ron mbàq gi waaye buntu suuf bi ak buntu sookaay bi dara sëkku ci kon su boobaa nag am na ñaari wax ndax lay génne ci bën bën boobu dana yàq njàpp wala lay génn ci bën bën boobu du yàq njàpp moo am ñaari wax waaye wax ji gën a wóor rek mooy bu fekkee ne buntu suuf bi suñ borom sakku ko bu sakkut buntu sawukaay bi kon su boobaa yàq njàpp lay génn ci bën bën boobee ba tey itam day dellu ci bu fekkee ne buntu suuf bi ak buntu sawukaay bi daa sakk waaye bën bën ba daa nekk ci kaw mbàq ga la cay génn ndax dana yàq njàpp wala du yàq njàpp ba tey am na yaari wax waaye loolu nag dañuy wax ne fi mu amee yaari wax rek mooy bu fekkee ne e, moom buntu suuf ba ak buntu sawukaay ba ba suñu borom sakk dafa sax maanaam sakk gi ko yàlla sakk dafa sax kon moom lay génne ci bën bën boobee doonte ci kaw mbaq gi la nekk bu fekkee sax gi dafa sax nga xam ne noonu la taxoo kon lay génne ci bën bën boobu donte ci kaw mbàq gi la nekk sax bu boobaa nag dana yàq njàppoo kon mu jàll ci sabab yi waxoon na la alxadisu kon dafay jàll ci sabab yi nga xam ne day sabab ak toj in xasada ndéem jublu na lazatan bànneex aw wajadaha wala mu am ko ca laal googu yëpp li tax mu yàqu mooy moom mi laal mu jublu ca bànneex wala mu am ca bànneex nga xam ne moom dama koy def ñeenti xaaj mooy mu jublu ca bànneex su boobaa njàpp mi yàqu na wala jublu ca bànneex waaye am na bànneex su boobaa njàpp mi yàqu na wala jublu woon na ca bànneex ba pare am ca bànneex kooku moom waxaale wuñ ko njàpp ma yàqu na benn rek moo yàquwut mooy jublu woonu ci bànneex te amu ci bànneex moo tax mu ne lal tafaya waxuñu bu ñu dàqoo ñoom ñaar bu ñu dàqoo ñoom ñaar mooy jubluwoonu ci bànneex waaye itam amu ci bànneex illal xublatu ndare fóon bi famiñ ci gémmiñ mutulaxan ak nu man di deme ba mu des nag fóon fóon moom ci gémmiñ dañ ko diisal lool jëlle nañ sax aji fóon ji waaye kañ fóon sax njàppoom day yàqu kañ fóon njàppoom day yàqu waaw kon fóon moom dañuy wax ne ki ko def ak kañ ko def yëpp njàppoom day yàqu moo tax mu ne wa in bi kurhin ak doonte ci ak force la doonte sax dañ laa force fóon la ci gémmiñ su boobaa sa njàpp dana yàqu awis ixfaalin wala donte ci ak betteel la mel dañ koo bette itam daal di koy fóon su boobaa njàpp mi dana yàqu waaye nag laali wadaaxin waxuñu ngir tàggoo aw rahmatin wala yërmande bu fekkee ne kii fóon daf koo fóon fóonu tàggoo rek donte ci gémmiñ la wala fóonub yërmande ne am lu ko dal lu tiis mu yërëm ko tax mu fóon ko noonu su boobaa moom loolu du yàq njàpp kon dañ ciy génne foonu tàggoo ak foonu yërmande loolu nag mooy atteeb bi tollee ci laal gi atteeb allaami su aji laal ji waaye almalmuus ki ñuy laal ki ñuy laal moom itam bu fekkee ne am na ca bànneex ca laal ga su boobaa moom itam njàppam dana yàqu moom mi nga xam ne dañ koy laal mhm. bu fekkee ne am na ca bànneex ca laal ga rek moom itam njàppam dana yàqu lee waxoon itam ci xaayil gi muy aji digale gi di dox digganteem ak ki muy laal am ñuy wax naan bu fekkee ne dafa woyof dana yàq njàpp bu fekkee ne dafa diis du yàq njàpp boo xoolee sara bi muy indi naan wa mahallu tawilayni ma lam yaqbit allaamisu ala shay'in min jasadil malmuus bi yadihi wa illaa uttifiqa ala naqdi fa ñuy wax naan kat am na ñaari déggin ca mu dawwana ci ki nga xam ne mooy aji laal ji mooy mu laal ci loo xam ne daa am digale ak moom waaye bu fekkoon daa ngëpp yaramam laal ci jàpp ci yaramam moom kon su boobaa maas nañ ci ne dafay yàq njàpp mhm. kon loolu mat naa bàyyi xel wala lazatan du jaageenu bànneex bi nazarin ci xool naka noonu itam xoolu kese moom doonte ànd na ak bànneex sax du yàq jàpp ne nit ki jàpp ba pare di xool jigéen doonte xool ba mu ngi cee am bànneex sax bu daal génnu ci moom rek du yàq njàpp tax ne ka in aazin nit ki jugug sàkkara bu fekkee ne xool googu am na ca bànneex ba sàkkaram jug sax su boobaa du yàq njàpp bu dara génnul ci moom daal mel ni masiyu kon su boobaa xoolu kese yi moom du yàq njàpp wala zatin ak bànneex bi mu xarramin ci aji aramanteel xalal asaxi ca wax ji gën a wér naka noonu itam ki nga xam ne dafa jàpp ba pare laal koo xam ne ab araamanteelam la loolu du yàq jàpp mel ni mu jàpp ba pare laal xale bu jigéen boo xam ne daawul bànneexu ci moom danañ ci àgg wala mu jàpp laal magam bu jigéen wala rakkam bu jigéen walla mu jàpp laal waajuram bu jigéen kooku nee nañu doonte daf caa jublu bànneex wala mu am ko ca du yàqu njàpp loolu mu ne nag xalal asaxi ca wax ji gën a wér maam nga ne xalal asaxi xinda ibnu xaajib wax ji gën a fa ibnu waaye loolu wuti naag li ñu sukkandikoo boo xoolee saraa bi nee na waxaala ibnu rusdin wal mazari in xasadaha wa wajadaha aw wajadaha faqat نقدت وإن قصدها ولم يجدها فلا نقد إلا إذا كان شأنه ذلك لذناعة القول فيه لولي ابن رشد واخ اك مازي ام دانيو واخ ني بو فكيني لال با داف تي جوبلو بانيه با ام كوتيا ولا جوبلو ونو تي بانيه واي امنا تي بانيه سو بوبا جاب مي دانا ياكو خامني ار امي بانيه رك موم جاب موم دانا ياكو bu fekkee ne daf caa jublu bànneex waaye amu ko ca moom su boobaa njàpp mi du yàqu lu may nag koo xam ne dafa dafa yembali lool maanaam nekk koo xam ne daal dafa ñàkk solo lool ba yooyu nga xam ne daa daawee su ci am bànneex sax ci laal sa yaay wala laal sa rakk bu jigéen yu deme noonu moom dafa am jikko ju suufe ba tax muy am ci yooyu bànneex kon su boobaa kooku moom bu ko laalee rek te jublu ci bànneex moo xam am na ko ci moo xam amu ko ci njàpp mi dana yàqu mm-hmm. boo xoolee itam eh, ci sarxu bi bi mu wax ne wa eh, muharramun fala yanqadu lam lamsuha qasdan bila wujudan wala xam qasdan bila wujud bila wujudi lasatin fa in wajadat naqadat alal muhtamad waaw bu fekkee ne daf koy laal moom aji araamanteel ji euh, te laal googu mu jublu ca bànneex bu fekkee ne amu ca bànneex su boobaa njàpp mi du yàqu waaye fa in wajadat naqadat bu fekkee nag am na ca bànneex kon njàpp ma yàqu xalal muhtamad yi ca wax ja nga xam ne moom moom lañu sukkandikoo kon loolu mu wax ne ala asaxi ala asaxi inda ibnu xaajib ca la gën a wér fa ak lu ñu jooye li laal sakaram al muttasil lay aji jokk ci moom ba tey ki nga xam ne daa jàpp ba pare laal sakaram moo xam laal ga moo ko tey moo xam laal ga teyu ko su ko laalee lee muy bëgg a wax ci kanam rek su boobaa njàpp mi dana yàqu bu fekkoon nag sàkkare bi daa dagg dal fële mu laal ko kon su boobaa du yàqu njàpp bu fekkoon sàkkare keneen la laal mu ni mu laal sàkkare góor yu demee noonu kon su boobaa da ngay delloo si àtteeb laal ga rek ndax laal googu ñu waxoon moo xam góor la laal moo xam jigéen la laal bu ko ci laalee jublu ci bànneex wala mu am ca bànneex rek njàpp ma dafa yàqu wala zakar moom la ko borom asxalul masalik waxe woon ca wayam wa donte sax góor la laal bu ci jubloo bànneex wala mu am ca bànneex njàpp mi dafa yàqu kon bu laalee sàkkarab góor itam dañuy xool bu fekkee ne laal googee mu ko laal da caa jublu bànneex wala mu am ca bànneex su boobaa njàppam day daal yàqu waaye nag bu fekkee sàkkaras boppam la moom bala moo yàqu fekk sàkkaras yi takk ci moom takk ci moom bu fekkoon dafa dagg rot mu laal ko kon su boobaa du yàq njàpp wala xunsa donte nguli ngaana la muskilin bi aji lënt ak donte sax moom mi laal sàkkaram dafay nguli ngaane al xunsa muskil mooy nguli ngaane bu lënt nga xam ne dee su ko jox góor dee su ko jox jigéen kon su boobaa itam lu tey njàpp ma dana yàqu mhm. saa muskil moom dañ koy jox ay atte yu bari ci sharia demee ci miraas sax fi nii duñ ko jox cërub góor duñ ko jox cërub jigéen naka noonu bu demee ci julli gi itam du taxaw ci sàppe góor ñi du taxaw ci sàppe jigéen ñi day am sàppe boppam moom xunsa muskil waaye nga bàyyi xel baatub law googu law googu mu wax dafay junju dafay junju wuuteeg ngir waaw dafay junju wuuteeg ngir moo tax mu wa asaara bilaw ila raddi ala man yaqulu inna masal xunsa muskil zakarahu la yanxud am na ñoo xam ne dañoo wax ne xunsa muskil kat bu laalee sakaram du yàq njàpp ba ki sax jàpp ba pare laal sa jëmmi sàkkara bu dee ci mashabu Malik rek dañuy wax ne day yàq njàpp waaye bu dee ci yeneen masahib yi am ñu wax ne kon euh, sàkkara cër la rek comme yeneen cër yi waaye bu Malik moom euh, li mu sukkandikoo rek mu xadis yonent bi sallallahu wax ne képp koo xam ne dafa jàpp ba pare laal sàkkaraam fale tawadda kon na jàppaat loolu xadis ci loolu la sukkandikoo ba wax ne laal sa sàkkara ku jàpp ba pare def ko dafay dal di yàq njàppam mhm. ak doonte day xun saa muskil du tey njàpp ma dana yàqu bala moo yàqu nag na ko laale fii muy bëgg a wax bi bat ci biir cëng aw jambin wala ak wàll li kaf ñeel cëng aw asboxin wala baaraam wa in zaidan ak doonte aji dolliku la donte aji yokku la xassa jot yëg na bala ñu wax ne nag ki laal sàkkaraam njàpp mi yàqu na daf koy laale yii nga xam ne moom la wax mooy mu laale ko ci biir li xong ci téngam wala mu laale ko wetu li xong ci téngam wala mu laale ko baaraamam li xong ci baaraamam wala ay baaraamam ci ko ci laale rek su boobaa dafay daal di yàq njàpp ak doonte baaraam la boo xam ne sax dafa yokk ndax am na ñoo xam ne suñu boroom daf leen di defal lu mat juróom benn baaraam waaye baaraam boobu yokk ci ay baaraamam nekk juróom benneelu baaraam bu fekkee ne mu ngi yëg lébi yeneen baaraam yi di yëg xam ne boo ko ci kaata mu metti kon su su boobaa bu ko laalee zakaram njàpp mi dana yàqu ba fa ko nag baaraam bi yëgul dara nga xam ne boo ko ci kaatan du metti loo ko ci def du ko yëg kon su boobaa moom du yàq njàpp boo ko laalee kon xam naa mbokk yi mën nañoo taxaw lu foofu ba dellu siwaat lu fi jub ñu xam ne suñu borom la lu fi dëng ngeen jéggal ñu ko te jubbantil ñu ko wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh